liggéey bii nga xam ne moom ci la nekkoon. Mhm. mooy julli géej gi. Mhm. Eh, ànd ko àndoon na noonu. Mhm. waaye daawul ñàkk nag eh, koo xam ne eh, moo ne ci kanam ànd loolu dem nañ bàgg foo xam ne. moom mii moo moom la yàlla jox taxawaay bi. dama taxawu na ne ñëpp daa na ñëpp di na ñëpp noonu. am na am na am na am na am na ndigalam. moo tax bëgg nag liggéey ji moom ñu bàyyee ko ko. moom mu jiitu mu jiitu yi man na ndax man na ko waaw waaw loolu wax euh, ñëpp dégg ko hmm. ñi may waxal nag sëñ Mbacke Faye moo ci jiitu ndax moom mooy jëwri ñi Cap-Vert euh, kon nag lu ma ciy def faaw mu am ci wàll kon moom na ko xamee noonu ñëpp yi xamee ko noonu son solo tey joxoon def naa ko kilif muy kilifa julli géej gi waaw loolu waaw noonu la bu ko defee nag eh, jox naa ndigal sëñ Yuusu wàllu taxawaay liggéey bi liggéey bi muy bëgg ku koy ku koy ku koy liggéeyal ngir sëriñ bi liggéey boobu eh, jox naa sëñ Yuusu ndigal na ko ca taxawal waaw ca nu ko bëggee rek waaw loolu moom laa bëggoon a wax muy kàddu yoo nekk ñëpp dégg. Euh. lépp lu taxawaay ba laaj. Euh. naa ko moom. dégg naa la ko. alhamdulilah. <laughs> loolu li ci am solo mooy liggéey Sëñ Tuubaa rek ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo ci bokk yéen ñun ñëpp ñoo ci bokk jub kon alhamdulilah yàlla waaye yàlla yàlla yow yàlla jox taw fexe rek waaw taxawaay boobu yow yow yàlla yàlla yàlla gàddu taw fexe Sëñ Tuubaa taw fexe Sëñ Tuubaa rek la ko waaw taxawaay boobu nga xam ne tey jox naa jox naa ci digal moom mi daal xam na ne bi dong yi mel ni lu bëgg xam nan la war a sante sëriñ bi dong yi ñu toog naan nan la ñuy sante sëriñ bi ñu ne nekkate jëfe ndigal bàyyi tere moo tax moom bu waxee duñ ci teg dara mën nañ ko dinañ ko def dina gaaw te lépp dina tege ni mu ne te duñ te duñ ci soxla dara sax jërëjëf sax du ko soxla woon <laughs> kon kon kon noo ko bëggee woon. ko bëggee woon